I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen dokkel bu baax ci tewlu gi di fàttali ne yéen ngi ak radio Touba Tarqiya ci 95.6 kaddu di bayiko fi ci dara ji ci Touba yoonu belal ci internet ngeen man ñoo am ci ñetti point point sn ñuy delu ci di siaré mboolem auditeur yépp di leen sant bu baax di leen gërëm ci tewlu gi ak safo bi nga xamne ni ngui koy safo programme radio bi ñi del seg kon ci ni nga xamne mom lañ ko waxe won talata ju jot ci waxtu yi dañ leen dektalat li nga xamanteni moy mooy seen émission tarikhul islam di émission bo xamanteni nañ ci baxo and ak serigne basirou mbàkke euh, bu touba xelkom euh, muy serigne basirou mbàkke ibnu cheikh abdul karim euh, kon nak émission bobu fi nga xamanteni ni euh, fi lañ ko tambalé won di top ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci njël benn ak wotem ak dundam lepp ak xare yi nga xamanteni mo ci aw ba ni mu taxawale diine l'islam ba kérok bim fi bayiko ci khutba bi nga xamanteni mom la mujj khutba ak waxtaan yi nga xamanteni mom la mujjé denk mbollem ñepp kon loolu dégg ngeen ci ay émission yu yaatu ak sëriñ Bassirou Mbacke ci euh, weer yi ñu génn euh, mu mel ni nag fi nga xamante ni foofu la émission bi tolloon fa lañ ko daal di weelewaat rek muy taarixul islaam euh, gannaaw bu yonent bi sallallahu alayhi wa àdduna ñi daal ñëwaat nag wéel liggéey boobu bi fi bàyyi woon ci njëlbéenu liggéey ba Euh, mu dénkoon ko Seydina Aboubacrine Saddiq kon euh, xulafaaw rachiduna yooyu ci la sëriñ Basiiru Mbàkke tàmbaliwaat waxtaan woo xamante ni incha allah noonu lañ ko fa yéene toppe kon nag waxtaan woo dégg ngeen ko ci ajuma ji weesu kon moom lañuy ñuy del si dégtalaat leen ko kon nag gannaaw waxtu yu jot na dañ leen di daal di bàyyi ak sëriñ Basiiru Mbàkke ci émission boobu nga xamante ni mooy euh, taarixul islaam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 di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ñëwaat ak fi fii di fas yéene mottuli liggéey bi ñu tàmbali woon te moo di taarixul islaam xam ngeen ni jamono yeen weesu waxtaanu nañu ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni mu génne àdduna def ci ay leeral ci fi mu jaar ci woote bi ak xare yi nga xam ne taxawal na ko ba ni mu taxawale li mu bëggoon a taxawal ba aayab alquran bi wàcc ne alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diinan mu mel ni li mu bëggoon a taxawal lépp taxawal na ko ba wuy ji boroomam sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni dafa doon jàngalekat bi nga xam ni moom la yàlla yónni ngir mu jàngale jàngale nag bu ñu ko waxee dafa mel ni ñi ñuy jàngal am na lu leen war ci njàngale ma ci biir loolu saxaaba yi mu daan jàngal dégg nañ la mu doon jàngale la mu doon jàngale mooy diini islaam moo war a taxaw ci kaw suuf ñu di ko jëfee di ko tasaare gannaaw bu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee mbiri jullit yi ci wàlluk diine ak wàlluk adduna am na ñeent ñu ko jëkk yanu jiite jullit yi ñeent nañu nag ñooy ngën ji saxaaba yi radiyallahu anhum ñooñu ñooy abu bakrin ak sayiduna omar bnu xataab sayiduna osmaan wa sayiduna adiyu bnu abi talib radiallahu anhum ajmain ñooñu li ñu takkaayoo ci ay jikko yu rafet ak taxawaay yi ñu am ci liggéeyal islaam ak liggéeyal jullit yi moo waral ñu di leen wooyee al xulafaa ur rachidun أجب لي حديث ينتبه صلى الله عليه وسلم تدنكو أخوانا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كيف جاك الخلفاء الراشدون يي إيه؟ موم يبقى نيو بغا مي ابو بكر كان موي ابو بكر ني كوي ابو بكر واي ميغي تدو عبد الله كون ابو بكر او داكنت الله عبد الله ابن ابي قحافه ابو قحافه او دكنتو بايام لا واي باي بانغي تدو عثمان ابن عامر عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعيد بن ابن التيم ابن مره ابن كعب بن لؤي القرشي التيمي موم ابو بكر مي داجي يونس صلى الله عليه وسلم تي مبوك مام دي مره ابن كعب وجرمو جيجين ميغي تود ام الخير سلمى بنت صخر ابن عامر دوم بايو ابي قحافه لا موم ام الخير موم ابو بكر ميغي غاني ادنا تي اتوم جرومي تيمير اك جروم نيار فك اك نيت غناو خاو خاو نياي تي نيت ات تي نينكو مانا ناتلي nga xamni yonante bi ñetti at lako magge ابو بكر خريط يننتبه لون صلى الله عليه وسلم جك ني يننتبه اك غناو بو ني يوني يننتبه يننتبه داف كو دان سيت سي دي وقت عليك مومي تام مو دي سيت يننتبه صلى الله عليه وسلم دي وقت عليك ابو بكر بكون نتي كليفه قريش تي جامانوي جاهليه موي بي اسلام نيوك كوني سوبون لا ابو بكر بن مسان دجل دي يني سدالي صاح ci loxoom lañ ko daan teg ngir doyloo gu ñu ko doyloo woon ci jamono yooyu warmaaloon nañ ko ba lépp lu jëf waa Qurayshin danañu ko dëggal képp ku war lu garanti ko dugal ko ci biir kaaraangeem it kookee dees na ko aar warlu lu kaaraangeem jooju mu ko aar te keneen ku doon mën naa aar nit mbaamu làq ko ñu bañ koo dëggal ci kaaraangeem jooje bañ ko caa jàppale waaye Aboubacar moom naka jëkk war ma jooje yi yàlla mayoon na ko ci xoli doomu aadama yi Aboubacar ku xamoon askani arab yi la xamoon histoire arab yi xam li ci nekk ci lu baax ak la ci nekk ci lu bon mi ngi doonoon ab commerçant loolu la daan liggéey ku amoon koom la Aboubacar ku neexoon ab jataayal ku xamoon firi gént la ku baax la woon ndax dafa araamaloon sàngara ci boppam ci jamono jaahil ya jëkk islam di ñëw moo ko Usmaan bun Affan ana nan la jëbbaloo Aboubacar wax nañu ni mooy ki jëkk a ci góor ñi ka ñuy wax Ashaabi yu nee laaj Ibnu Abbas ni ko kan moo jëkk a jëbbalu mu ni ma Aboubacar نما خنا دغو واحد حسان وحن اذا تذكرت سجوا من اخي ثقه فاذكر اخاك ابا بكر بما فعل خير البريه اتقاها واعدلها بعد النبي واوفاها بما حمل نك ابو بكر مو ديك جيب لو خنا دغو واحد حسان وحن سا فاتلي كو اي ديكو تي بروم دكو دغرلو مبوكو مو ني دغرلو رك نغا فاتليكو سا مبوك ابو بكر تي ليم ديف kooku mooy ki gën ci mbindeef yi kooku mooy ki gën a ragal yàlla ci mbindeef fi kooku mooy ki gën a maandu ci mbindeef yi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ki gën a matale kulare ci kulare gum seq ak nit gum seq ak nit daa cee wa thaniyat taaliyal mahmuda mashhaduhu wa awwala naasi xidman saddaqa rasula ni ko mooy ki nekkoon ak yonent bi ci xuntima ñu di ko wooye thaanis nay mooy ki nga xam ne ab jotaayam lu ñu sant la mooy ki jëkk a dëggal yonente yi mu Abubakar ci xeet bi Abubakar bi mu jëbaloo yemul ci jëbalu rek toog waaye dafa daan wan nit ñi ci islaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni musuma wa kenn ci islaam te du am na fu këppoo am na nu mu taxawee di seetantal ak a nattable ba mu des Abubakar Abubakar di bi ma ko woo ci islaam déng déngiwul bi ko ko dafa gaaw rek daal di wuy si woote bi daal di jëblu Aboubacar ci ak wooteem ci islaam am na juróomi nit ñu bokk ci al ashratul mubashara bil janna ñoo xam ni jëblu nañu ci sababu Aboubacar radiallahu anhu juróom ñi ñooy Ousmane bun Affan ci loxol Aboubacar la jaare jëblu azubayr ibnul awaam ci loxol abu bakar la jaare jablu abdurahman ibnu awf ci loxol abu bakar la jaare saad ibnu abi waqaas wa talhat ibnu ubaydillah ñu ñëpp ci loxol abu bakar la seenu jablu jaare abu bakar ñaari way juram jablu nañu ak ñaari doom abu bakar dafa meloon ni ci yonente bi sallallahu alayhi bari ci ay mbiram moom la ko daan diisol daana disoog moom ci lu bari ci mbir Abubakar lor ju bëree bari dal na ko ci lori Xuraysin ci sababu jàppale gu mu jàppale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lor yooyu yonente bi bi mu nekkee kër al arqam ngir dafa jaamu yàlla mook ñim àndal ci saxaaba yi jëkk jëbul nga xam dañu daan làkkutu di ko def Abubakar moo sonal yonente bi ci bëgg ñu feeñal lii ndax neex ku diine neex ci xolam yonente bi ni ko Abubakar noonu jëy dañoo néew lool waaye nanguwu ko bàyyi rek di ko sonal ba yonent bi génn ànd ak ñi mu àndal ci saxaaba yi biñ demee ba ca wetu Kaaba ga Aboubacar daal di jóg daal di def benn discours yonent bi toog muy woote mbirum yonent bi kon Aboubacar mooy ki njëkk a def discours ngir woote jëm ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bi mu ko defee loolu doon lu gis ci mushrikoon yi dañoo daal di jóg dal ci kaw Aboubacar dal ci kaw jullit yëpp dóor leen. dóor yu métti lañ leen dóor Aboubacar ñu joggi ko ak seeni tànk dóor ko dóor yu tar ka ñuy wax Utba ibnu Abi Rabia Utba ibnu Rabia dafa jël ay dàll yu tar di ko dóor Aboubacar ci kanam ba mujj na bakkanu Aboubacar mënatuñ koo xàmmee ci kanam Aboubacar dóor ko ba mu tëdd banu tayim ñi nga xam ne ñooy mbokki Aboubacar daal di ñëw daal di dàq yéefar yi doon dóor jullit yi ak Abu Bakar bañ leen dàqee ba ñu dem ñu jël Abu Bakar yóbbu ko këram bañ ko yóbbu yët nag sikkuñ ci ne dee na mu ndax yëngutu defu ko bañ ko yóbboo ba këram lañ jël siwaat ci jàkk ji daal ni waat nañ ci yàlla ni bu Abu Bakar dee danañ rey ba loolu moom bañuñ ci dara ndax bu ko reyee suñu deret la rek daal di ñëwaat ci Abu Bakar fekk baayam abu xuhaafa ak baayam abu xuhaafa ak banu taym ñëpp di wax ak moom di wax ak waaye tontuwu leen ndax ñu ngi seet ba xam faatu na wala faatuwul noonu lañ ca yendoo ba bëccëg bi di bëgg a jeex abubakar wax waaye ba mu waxee kàddu gëm jëkk a yëkkati mooy anam rasulullahi def ñu yonente bi def mbaa amul benn jafe-jafe ñu daal di koy yedd ci ni ko yow ñu ngi jàpp ni dee nga nga taxaw fi wax mbiru rasulullah waaye abu Aboubacar di wax baat boobu rek maa faala rasulullah ana nu yonent bi def yaayam ni ko wallaahi xawma ci sa àndandoo boobu dara Aboubacar ne ko demal ca ummu jamil nga laaj yaayam dem ca ummu jamil laaj ko ni ko Muhammad laa doon laaj ay mbiram ndax sama doom Aboubacar day laajte ba xam ci lu mu nekk mu jamil xam ngeen ni ku bañoo yonent bi la mu doonoon soxna Abu Lahab lam ca teg mooy xawma Muhammad xawma Aboubacar daan ni ko bu fekkee dangaa bëgg ma ànd ak yow ma seet sa doom daal mën na maa ñëw ñu ànd boo bëggee ñu ànd ma seet si sa doom mën na maa ñëw ñu ànd mu ni ko waaw ummu jamil génn ànd ak yaay abou bañ ñëw fekk abou bakar mu tëdd ak coono boobu mu nekk ummu jamil sax li muy bañ bañ yonente bi ak li bañ bañ ku nekk ci woto bi yonente bi bi mu gisee abou bakar ci melokaan woowu dafa yoox daal ni nit ñi la def lii de ay kàccoor lañ te it xam naa ni yàlla dina la fayul ci ñoom Abubakar ni ko nan la yonente bi def Umu Jamil nu mu wuti tudd mbirum yonente bi da ko ni sa yaay ngi ni taxaw Abubakar ni ko laa jumale ci moom dara te it moom du siiwal sa secret du leeral say mbir nee na Umu Jamil ni ko ma nga ca kër alxam mucc na amul benn jafe-jafe Abubakar daal ni dama mos aw ñam te du naan am ndox te demuma ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam ne na ñu taylu ko ba suuf sedd ba nit ñëpp ni takk ne na ñu génn mu sukkandiku ci man di ndox sukkooti ci man di dox ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi mu am ci moom yërmande ju tar waaye dafa daal di këpp ci kaw yonent bi di ko fóon di ko wax ni ko bi abi anta wa um ya rasulallah maa bi min ba'sin illaa maa naala naasu min wajhi ni ko yow yonente bi jot naa la sama ndey ak sama baay amu benn jafe-jafe lu dul xanaa ni ñu ma gaañee ci sama xar kanam bi rek kii nag sama yaay la dimbale na doomam lool yaakaar naa ni yàlla dina ko musal ci xettali ci sawar moo tax yonente bi ñaanal yaayam dal di koy woo ci islaam mu nangoo jëblu bi tartari méttee ci jullit yi waa Xuraysim sonal jullit yi lool it ba yonente bi jox leen digal ñu gàddaay dem Éthiopie Aboubacar moom gàddaay yutoon dafa toog des ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ak njabootam ak doom biñ demee nag ba yàlla digal yonente bi gàddaay yonente bi ñëw kër Aboubacar fekk ko muy nelaw mu yee ko daan ni ko jox nañ ma ndigalul gàddaay Aïcha nee na kero gis naa Aboubacar mu jooy ngir mbégte ñu daal di ànd génn ba dugg ci xunti am nañ fa ñetti fan xunti moomu moom la alxuraan nett li ne saani ni is huma fil xeeri إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني مو نياري رون نيار نيت جامن يي نكي تي خونتما تادني موم موي جامن بي يونت بي واخا اب اند نوب ناكو بل داق الله يالا ميغي اند ني لول نيغي تي نتلي ني بينو دامي با لاقتو تي بير خونتي بي يفري بين خامي ني يونت بي صلى الله عليه وسلم رانانا دم غداي ني جام مدينه دانيو كوكو اندي حيان او ميتان dana ñu la jox nangam ci alal tudd ci lu mat téeméeri gëléem wax nañ ñi fa daw nañ di leen wër ba ak si jege lool xunti mi Aboubacar dana yonante bi ñoom buñ sëggoon képp danañu seen yonante bi ni ko bul jàq ndax yàlla nun la àndal benn bis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Hassan ibnu Sabit ni ko ndax wax nga dara ci woy wax nga ci dara ci Aboubacar ci aw woy mun ko waaw yonante bi ni ko waxal ma dégg نقول ما تعرفنا وثاني اثنين في الغار المنيف وقب طاف العدو به إذ صعد الجبلة وكان هب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به أحدا من غير ما تعرفني كوخ مو نياري نيار ني تي ما جامونو بي يفري ديور فك مو ييك تي دجوا مولاني دا ما تعرفني صوب بي يونتي بلا ku ne xam na ni yonent bi yemalewu ko kenn ci mbindéef yi nee na yonent bi dafa ree ba ay dégg jëm feeñ nee na mu ne ma wax nga dëgg de noonu la yonent bi ku warmaal Abubakar la ku ko teraloon la daana ko tagg ci kanamam bañ demee ba mën ba mu tëlee julli si ci jàkka ji it dañuy wax leen Abubakar mu jiite julli Abubakar fekkee na mboolem xare yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekkee na Badar ànd naa ak moom ca Uhud ànd ak moom ca Alxandaq سكن بيعة الرضوان تهديبية سكن خيبر سكن فتح مكة أك حنين الطائف سكن تبوك سكن حجة الوداع كوكو موم لين النبي صلى الله عليه وسلم جخون سخ درابو بي تبسو تبوك مدون درابو بنيول أبو بكر بوكو نتي نيغا خمني بسو أحد أك حنين بمتري بنيب دو تنيا دسون دي آريان تبي بولو سنيو سدسون دي آريان تبي جلا أبو بكر دسون Aboubacar mi ngi bokk ci magi saxaaba yi nga xam ne mokkaloon nañu alxuraan jëpp xam ngeen ne alxuraan du caagee ni saxaaba yëpp nañu ko daan mokkal ku ci ni rek day am loo ci mokkal waaye Aboubacar bokk na ci benn benn ya ñu daan lim ni mokkal nañu alxuraan jëpp. Aboubacar moo ki mooy kii kii défendroon yonente bi ci bi ko Uqba ibnu Abi Muayyad fekkee mu julli mu jël ak buum xeerandi ko ko mu fab mbubbam xeerandi yonente bi xoj ko ca xoj a xoj ba bëti bëti di bëgg a génn abou bakar moo ñëw ba max ko ni ko ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad jaakum bil bayinati min rabbikum ndax da ngeen di ray nit koo xamante ne day wax ni yàlla sama borom te andi leen ay firne yu leer jëlee ko ci seen borom moom moom ci la ma yonente bi waxee ne bu ma doon wutub xarit abou bakar laay jël mu di sama xarit law kuntu muttaxidan xalilan taxastu aba bakrin xalilan abou bakar goreel juróom-ñaari nit ca ñañu doon mbugal ci sababu dugg guñ dugg ci islaam muy Bilal ibnu Rabah Amir ibnu Fuhayra Zunayra ak jigéen ju ñuy wax Annahdiya ak doomam ak jaariyatu bani Muammal ak Ummu Ubays ñu ñëpp Aboubacar moo leen xettali musal leen ca mbugal yi ñu leen daan mbugal Aboubacar da def bu ñu ko taggee mu ni yow yàlla day yaa ma gën a xam sama bopp ma itam maa leen gën a xam sama bopp li ñu yaakaar ci man ba di ko wax yàlla na nga ma def mëgg loolu li ñu xamut ci man it yàlla na nga ma ko jéggal te bul ma jàppe mukk li ñuy wax noonu la daan doxee buñ ko mosaan tagg ci kanam Omar ibnul Xattaab wax na ni yonente bi mas noo digal nu saraxe te booba tombeeg ma yor alal ma ne tey jii nag danaa jiitu Abubakar bu fekkee danaa bu fekkee danaa ko raw daal tey laa koy raw nee na jël alal xaaj ko andi bi ma ñëwee yonent bi ni ma loo loo desalal sa waa kër ma ne ko desalal naa leen lu ni toll Aboubacar moom lam yoroon lépp la andi yonent bi ni ko loo desalal sa waa kër mu ne ko desalal naa leen yàlla akub yonentam nee na ma ne ak kii dootuma ko rawati ba mukk Aboubacar nett li na téeméeri hadis ak ñeent fukk ak ñaar jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Buxaari yow muslim dëppoo nañu ci ci juróom benn hadis Buxaari yu wéete ne ci fukki hadis ak benn muslim am benn bu mu wéete ci xadis yi aboubacar nattali am na ay xadis yu bari yo xamni dafa wone ngeenelul abou jël nañ ci amru ibnul has mu wax ni yonent bi ko yoni won ci xareb bañ wax zatu salasil nee bima bi ba ñëw ni yonent bi nit ñi ku la ci gënal muy ma aisha mané ko gor ñi la wax mu ni ma bayam mané ko gannaawam mu ma gannaawam Umar ibnul Xattaab ba lim ay mbooloo yi nit ñi loolu buxaari yu ak muslim ñoo ko nettali jëlee nañ ci ibnu umar mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ni képp ku diri mbubbam di diri am mbubb ngir puukarewu de yàlla du la xool yow mal xe aboubacar ni ko man ne man de sama mbub mi genn wàll gi dafay buubu ci suuf bu ma ko nin ko teew yonente bi ne ko waaye yow loolu defoo ko ngir puukarewu loolu rek la ko ci di tegal جلنا جاء أبي هريرة رضي الله عنه موحني ينتدي صلى الله عليه وسلم بن قسل فتن أنا كنت وارتيتين أو بكر نكو من دمار من أنا كنت خير طب أبني وتين أو بكر نكو من دلول دفناه من أنا كنت خير للا أب مسكين تين أو بكر نكو من دمان دفناه من أنا كنت خير وابو تين أو بكر نكو من دفناه ينتبني لدن داي تنت مك تتدول الجنة جلنا نتي mooy ba tey mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ci xira mook abou bakar ci kaw daju xira mook abou bakar ak omar ak osman ak ali ak talha ak zubair nee na daju bi yëngutoo yonente bi ni ko dalal ndax ab yonente nekk ci sa kaw ak sid akub siddiq ak shahid te mooy ko war a dee ci xare jëlnañ ci xosayfa mu wax ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni roy leen ci ñaar ñi ci sama gannaaw muy aboubacar ak omar hadis boobu tennisi yu moo ko nettali jël nañ ci ibnu mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na aboubacar ni ko yow day yow laay àndal ci dégg ba ndax yaa doonoon sama àndandoo ci xunt mi abu hurayra nettali ne ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne jënn alal musuma jariñe nima ma Abu aboubacar jariñe nee na Aboubacar dafa daal di jooy ne ko ndax maag sama alal kenn moomu leen ku dul yow ya bi ni ko maag sama alal ndax kenn di leen moom ku dul yow yow yonante bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ngëneeli Aboubacar Omar ibn Xataab daf daan nemmiku benn màggat bu jigéen boo xam ne dafa màggat ba noppi gumba kon ci peggi Madina Omar daan def bu guddee mu dem fa di ko rootal ndox di ko buubal néeg ba di ko defal lam itti woo ci ay aajo mu am ay jamono saa bu ñëwee fekk ñu jiitu ko ci lam daan def mu laaj ko lu mu bëgg defaral ko waaye saa bu jógee gaawtoo ngir bañ kenn jiitu ko fa rek bu ñëwee fekk ko fa jiitu ko def li soxna si bëgg nekkite boobu Aboubacar moo daan rocc ko di dem di defal soxna si li soxna si bëgg te boobu Aboubacar ab xalifa la nee na Omar ni ko giñ ni yow mi yow abou Aboubacar mooy xalifa bi jëkk wuutu yonent bi ci islam abou Aboubacar mooy kilifa giñ jëkk yabal ci aj muy jiite ji nit Aboubacar mooy ki jëkk a dajale alquran Aboubacar moo jëkk a tudde mushaf alquran mushaf Aboubacar moo daan ubbee ci jamono yonente bi صلى الله عليه وسلم nga xam ni des na koy laaj muy tontu te boobu yonente baa ngi nan la Aboubacar meloon dafa weexoon dafa xees xeesaay bu weex tàll doon ko woos aw yaram doon ko saw lool ba nga xam ni sax isar bi maanaam nit gi bi muy sol ni du mën a jafandu dëgg-dëgg mu doon koo xam ni kanam gi dafa ñeegu dafa woos jëb yi dafa yëkkatiku si loxo yi daf daan feeñ mu doon ku munural bakkan bët yi nag dafa xootoon mu sew lool ñaari yeel ku fonkoon fuddan la daan ko diw na ay soxnaam ak i doom Abubakar dencoon na ci jamono jaahiliya jëkk mu dugg ci islam ku ñuy wax Qutayla bintu Saad Qutayla moomu moo jur Abdullahi ak Asmaaw Asmaa moomu moom la Zubayr ibnu Awaam dencoon moo jur Abdullahi ibnu Zubayr mu denc soxna suñuy wax Umm Roman moo jur soxna Aïcha mi doonoon soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak góor gu ñuy wax Abdurahman Abdurahman moomu nag mooy taawam bu góor mooy ki mag ci ki mag ci doomi Abubakar Umm Roman مي يا سخنا عائشة فاتل لتي جمانو يننت بي صلى الله عليه وسلم يننت بي دن سيارة جي باميلم ساكل كو عم جنجل تيال مو جلال سخنا شيني وخ أسماء بنت عميس موجر محمد ابن أبي بكر أسماء مومنك جعفر ابن أبي طالب مو خيرا بن رأي جعفر لكو أبو بكر بنت بن أم محمد مومو بفي أبو بكر جوي علي ابن أبي طالب بنتكو ba am ci doom ju ñuy wax yaxya ginnaaw bi denc na jigéen ju ñuy wax xabiba bintu xaarija moom benn doom bu jigéen la fa am soxna Aïcha tudde woon ko ummu kalsom am na benn téere histoire bu ñuy wax muhammad wa xulafaa'uhu benn mustashriq bu ñuy wax washington ifranji moo ko taalif wax na ci ne abubakar nit ku am xel la woon ku jubub xalaat la woon bari na loolu lu mu daan moytu ci lenn jamono yi ci lim jiite ne nag ku réyoon ay jubluwaay la doonutoon ku topp bànneex nii daan dox ngir lu baax waaye dawul dox ngir intérêt personnel atte yi mu daan atte dawu ci xool bëgg-bëggi adduna am koom sax itteelu ko woon ku dëddu woon adduna la ak ci wàllu ndam ku dëddu woon wàlli bànneex yi la lim daan liggéey it daw ci jël genn pay gudul gi nga xam ne gudul loo xam ne arab simple bu nekk këram li mu lu toll li muy dundee rek loolu Abubakar daan jël ci baytul maal pour di ko dundee amutoon lu dul ak gileem ak benn jaam lépp lu ko mosaan dikkal ci ay hadaaya yi bi si ajjuma yi la daan dàkk di ko seddale Abubakar daana dimbule fuqaraa yi ak way ñàkk yi ci alali boppam Abubakar noonu la doxe kon hadiisu saqiifa mom lañuy waxtane ni saqifa nak buñ bu ñu ko waxee bani sa'ida ab eh, lu melni ab tante la woon boo ni bani sa'ida ñoko defon ci wetu marché bi dëkkoon fa fofu la ndaje mi amee woon moom la ñuy waxtaane xam ngeen yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi genn aduna ci bisub fukki fan ak ñaar ci weeru rabi' al awal ci atum fukk ak ben ci gaday tolok juroom ñenti fan ci weeru juin 632 ba bi mu génnee àdduna nag lansaar yi te mooy ñi dëkke woon madina madina dañoo dal di jóg di xilaafa gi jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi mu génnee àdduna nag lansaar yi te mooy ñi dëkke woon madina madina dañoo dal di jóg di sàkku xilaafa gi jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk muhaajiroon yi ñoom xalaatuñu woon sax ci mbirum xilaafa gi ndax lan lenn ci magi saxaaba yi ñoom ñi ngi ittewoo woon waajal yonent bi sallallahu alayhi wa ak denc mu mel ni ka ñuy wax Saad ibn Abi Ubaada moom dafa amoon ak xememteef ci doon xalifa ñu ngi ko daan bàkkentale Aba Sabit moom la Bani Saada tànnoon mu doon kilifa guñ topp ci giru Xasraj gépp lan yi dañoo daje ci saqifatu Bani Saada bu ñu wax saqifatu Bani Saada ni ma ko waxee léegi ci Madina la nekk lu mel ni ab xayma la boo xam ne dañ ko daan samp di di fa toog banu Saayida nag ak euh, aw xeet ay ak giir lañu maanaam ab quartier la bu bokk ci lansaar yi Saad ibn Ubaada moom këram dafa nekkoon ci peggu marché bi marché bi Madina foofii fii la saqifatu bani Saayida nekk dañoo andi Saad fekk booba dafa wérat dafa sibru ngir jaayanteeg moom ñu sàkku ci moom mu def ab xutbaam mu wax doomam wala kenn ci ay doomi baayam ni ko wér digg tax na li may wax nit ñi duñu ko mën a dégg waaye nag dangay jël samay wax di leen ko jottuli xutba bi Saad di def mi ngi nii Saad daat ni yéen lansaar yi yéen day yéen a jiitu ci diine ji am ngeen it ngëneel ci islaam lu leer loo xam ni benn xeetu arab amu ko Muhammad salaam sax na fukki at ak nangam ci aw nitam di leen woo ci jaamu yàlla ak bàyyi xelam yi waaye ñu néew ko gëm ñoo xam ni buñ ko bëggoon a aar it duñu ko mën a aar mënuñoo teral it diine ñooñu mënuñu woon a défendre sax seen bopp ci tooñaange yee ñu leen di tooñ waxuma la di défendre keneen bi yàlla bëggee ci yéen ngëneel nag la leen indil teraanga ci jagleel leen xéewalug boppam wërsëgale leen ngeen gëm ko gëm yonantam bi wërsëgale leen ngeen aar yonante bi aar ay saxaabam teral ko teral diineem wërsëgale leen ngeen di jihaat ay noonam ngeen doon ñi gën a tar ci noonu yonante bi ba arab yi nangu mbirum yàlla ñii nangu ko ci coobarewu ñii nangu ko ci ak forcé wu ba ñu sori woon mujj nañu ñëw nangu si mbirum yonante bi ànd ko mokk ci yéen la yàlla nooyelale suuf si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seeni jaas yi moo tax arab yi nangoo mokk topp yonente bi tey nag yàlla jële na ko fi te yéen ñëpp gërëm na leen am na am ngeen gërëm xoolam it sedd na ci yéen kon mbir mi yéen ko gën a yaayoo keneen ku dul yéen fexe leen ba bu leen ko seq kenn yéen ko war a jël muy xutba boo xam ni Saad ibn Ubaada bi mu ko defee bi mu koy def mi ngi jàppoon ni muhaajiroona yi dañoo jëkkanteeg ñoom xilaafa gi te gis na ni lansaar yi ñoo gën a yaay ci xilaafa gi ci muhaajiroona yi ngir sabab yooyu mu tudd te fekk ne sax muhaajiroona yi ñoom dajeeguñ woon woon tàmbaliguñ tàmbali wuñ woon a waxtaan ci mbirum xilaafa gi saxalaguñ woon dara dara gis nañu it ni xutba bi bi ko Saad ibnu Muaas defee lansaar yi rafetlu nañu ko rawatina nag ñi bokk ci xasra ji nga xam ñooy ak jërëm ñoom ñëpp ñu wuyu ni ko sa xalaat jub na wax ji it jub na lii nga gis duñu ko jéggi mbir mi yow lanu ci jiital ndax doy nganu te it baax nga ngir jullit yépp loolu bi mu amee lenn nati muhaajiroon ya fa jotoon a teew daal di gis seen bopp ñoom itam ni déedéet nun ñooy muhaajiroon yi ñooy ñi jëkk a topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nun ñooy ay mbokkam ñoo ko gën a jege ci mbokk loolu kon nan lay mën a nekkee ngeen di ji ngeen di tànn kilifa gi war a yowtu yonent bi ci yéen di nu bàyyi léegi lan saa yi yëkkati waa seen kat ni kon léegi nañ jël kilifa gu bokk ci nun yéen tam am kilifa gu bokk ci yéen ñu xaajale mbir mi léegi ñenn ñu ne euh, ka leen war ñenn ñu ne wut seen kilifa lu dul leen duñ ko nangu sax dub na obaada ni leen jiite woon bi kàddu googu jibee leen leen ah loolu da mooy li jëkk ci ak doyee di dama ngu noonu muy bëgg xaaj mbir mi def ko ñaari mbir ci dégg li xew ca saqifatu bani saida ak discours ba wax ni Saad ibn Muaz def na ko fa ak juyoo ya am ci diggante lansaar yi sos lool yi ak muhaajiroon ya fa teewoon mu daal di gaaw dem kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ci Aboubacar ni ko génnal euh, fekk si ma maa lay xaar fii dama laa soxla waaye Aboubacar fekk dafa nekkoon ci ay itte mu yónni waat ndaw li ni ko nekk damaa nekk ci itte Omar nii yónnee ni nee leen ko mënta ñàkk mu teew si ndax mbir dafa xew moo xam ne mënu ko ñàkk fekke nee na bi Abubakar ñëwee mu xamal ko ko ñu ànd daal di gaaw dem ca Bani booba ñu ngi ànd ak Abu Ubayda ibnul Jarraax ah. Omar bi mu ñëwee bëgg a wax Abubakar noppiloo ko ni ko defal ndànk ba mu wax ba noppi waaye bi mu wax wax na ci biirub xutbaam lépp lu Omar xalaatoon ci am xelam ngir wax ko rek wax na ni waxaale na ko ci biir xutbaam boobu Abubakar dafa tàmbalee ab xutba xutbaam ci sant yàlla tagg ko daal di wax ni yàlla di moo yónni Muhammad mu dib yonente ci ay mbindeefam di seere xeet wi daf ko yónni it ngir ñu jaamu yàlla te wéetal te jamono booba ñi daan jaamu ay yàlla yu bari yu bokkut di wax it ne yàlla yooyu dañu leen di ràmm fa yàlla di wax it yàlla yooyu amal nañu leen njariñ te yooyee du woon dara lu dul aw doj wu ñu yett wala aw dénk wu ñu defar daal di jàng ayab wa yacbuduuna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfauhum wa yaquluuna haulaai shufaauna inda allah dolliwaat delluwaat jàng aaya di wax ne wa qaalu ma nacbuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi sulfa waaye bu njëkk bi li ñuy wax mooy ñi ngi jaamu lu dul yàlla te loolee day du leen lor du leen jariñ waaye dañuy wax ne ñoom ñoo ñuy tënnu fa yàlla beneen aayab ñaar bi wax ne ñun kat xërëm yi ñuy jaamu jaamuñu ko lu dul ngir bëgg ñu ñu ñu jegeñal nu yàlla dañoo wax ne yàlla dafa sori mu ne sutee àgg nii rek kon fokk nga wut intermédiaire bu dox diggante ak moom ñoom xërëm yi am na ñu dégge woon ni xërëm bi moo leen gën a jege yàlla dañ koy jaamu fa mu eggale leen ci yàlla waaye naka jekk seeni xol yàlla mu bind mu ngi fi yëpp kawe lépp ëpp doole lépp mi ngi ci arab yi bàyyi diine seen bàyyi yewoon jafe na ci ñoom muhaajiroon yéen a ngeen ngeen di xëccoon mbir mi te mooy waa Makka ñoom la yàlla jagleel ñu jëkk koo dëggal ñoom la yàlla jagleel ñu jëkk koo gëm ñoom la yàlla jagleel it ñu nangu koo jàppale tartar yi ko ay nitam daan teg yëpp it ñoo ko ko ànd daan ko mën wedd yi ñu ko daan wedd yëpp it ñoo ko yonent bee ko daan ànd te booba nit ñëpp dañoo juyee ak moom waaye loolu lépp jaaxalu leen wéetaay wañ ci wéet méttiwut ci ñoom weddi gi leen nit ñi weddi ak di leen toroxalit méttiwut ci ñoom kompaloo gañ leen kompaloo it ci ñoom lépp nangu nañu ko muñ ngir dëggal yonante bi ak jàpp ci seen ngëm ñooñu kon ñoo jëkk jàmm yàlla ci kaw suuf ñoom muhaajiroon yi ñoo jëkk a gëm yàlla akub yonantam te muhaajiroon yi it ñooy mbokk yonante bi ñooy aw xeetam ñoo gën a yaay ci mbir mii it ci ginnaaw bu mu fi jógee ku ko xëccoog ñoom rek ab tooñkat nga yéen nag yéen lansaar yi seen ngëneel ci diine kenn du ko weddi seen jiitu li ngeen def ci islam muy mbir mu mag a mag a mag it kenn du ko weddi yàlla moo leen tànn gërëm loo leen ngeen di way dimbale diineem ji moo leen tànn gërëm loo leen ngeen di dimbale yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi muy gàddaay fi ngeen dëkk la yàlla def mu gàddaay jëm si fi lu ëpp ci ay soxnaam ci yéen lañu bokk lu ëpp ci ay saxaabaam ci yéen la bokk kon gannaaw bu muhaajiroon yi jàllee kenn amul wàccuwaay bu fi nun bu mel ni bi ngeen am yéen nun ñooy kilifa yi kon yéen yéen a sës ci nun duñ diisoo mukk bàyyi leen kenn du dogal menn mbirit ca fekkewu leen ko Boubacar xutba boobu moom la xutba ca saqifatu bani saida léegi ka ñu wax Xubaab ibnul Munzir ci ca saar yi la bokk dafa daal di jóg moom itam ñu ngi ko daan dàkkantele Aba Amr ñu daan ko waxit zur ra yi ni borom xalaat la moom ba mu jógee ana lu mu wax dañee yéen lansaar yi téye leen seen mbir ndax nit ñi ci seeni i ëtt lañ nekk ci seeni ker lañ nekk kenn ñi moota wut ak yéen fii nit ñi duñ fi jógee mukk yit ci lu duñ def lenn lu dul seen xalaat yéen boroomi teraanga ngeen boroomi koom ngeen am ngeen mbolo am ngeen karange am ngeen experience mbiri adne yeen ñu tar ngeen ci jamono xex bu le jamono dimbalee ñepp yaakaar na ngeen ci nit ñi lu ngeen di def rek ngeen xamni lu ngeen nek rek mom la ñi di xol bu leen joyo nak ndax bu ngeen joyo joyo gi dina yàq seen xalaat te dana mankil seen bir legi bu fekkee nanguwuñ nag lu dul lii ma wax man taam muy nan jël kilifa gu bok ci nun tànn kilifa gu bokk ci ñun léegi lii rek maanaam Omar ibnu Xataab daal di tontu Xobbaab ibnu Munzir ni ko mukk mukk ñaari gileem kenn du leen ñëw ci gën ba ni ko arab yi xalaatu ñëw fab kilifa guy wuutu yonente bi te bokkul ci xeetu yonente bi waaye ñi bokk ci xeetu yonente bi arab yi duñ leen bañ a fal def leen ay kilifa ñu wutu yonente bi te loolu ku ko bañ ku ne rek am nañ lay wu leer mën a teg ci sa kaw kan moo mooy xëccoog ñun kilifteefu wuutu yonent bi ñun ñooy ay mbokkam ñun ñooy ay jegeñaale kenn kenn du ci xëccoog ñun ku dul koo xam ne ab caaxaankat la wala koo xam ne fàggukatu bàkkaar la wala kuy dugal boppam ci ay danse bi Omar waxee loolu Xobbaab Ibnul Munzir daal di jóg ne yéen lansaar yi yéen téye leen seen loxo bu leen dégg waxi kii ak ñi àndal ndax bu ngeen ko déggee seen cër la ñuy yóbbu ci li ngeen cër bi ngeen am ci mbir mi dañu ko yóbbu bu fekkee léegi lii ngeen laaj muy kilifteef gi lànk nañu ko léegi génne leen leen suuf si ndax suuf si suuf Madina la ñun ñoo ko moom bu leen génnee fal ku neex léegi moo fi yonente bi daal di leen yéen a gën a yaay ci mbir mi ndax ci seen seeni i si ñu mokkal diine ji jëpp ci seen i jaasi la lañ mokkee waaw lii daal mooy li ma li ma li ma leen di li ma leen di wax léegi nag bu leen neexee ñu delloo ko fa nekkoon rek mu doon ak noonu mu mel ne Xubaab ibnu Munzir andi na fa xuloo bu tar jëfandikoo na ay baat yu teen ci biir discoursam boobu soññu ne it lansaar yi ci bëgg ñu dàq muhaajiroon yi ñu génn suuf si far suuf si Madina bu fekkee nangu wuñ leen a fal tëkku na leen it ci ay réew war nañ ci fekk moo tax Omar ni ko isan yaqtulaka Allah li nga wax ne bu ko defee yàlla dana la alak Xubaab tontu ko ni ko bal iyaaka yàqatul yow moomu la yàlla di alak abu ubayda dal di waxat ni yeen lansaar yi yeen yéen a jëkk abu ubayda ibnul jarrah mo yëkkati kàddoom ni yeen lansaar yi yeen de yéen a jëkk kon nak, dina bu fi jógee bu leen jëkk sappi dina ji di fofé bi mu ibnu Saad dal di jóg ibnu sa'laba ibnu jallas ñu dan ko dakenta la aban nu'man mu ne yéen lansaar yi giñ nañu ci yàlla ne ñun kenn jiitu wu ne ci ngëneel ci wàllu jihaat ak yeefar yi kenn jiitu wu ne ci diine ji te bañ koy defit bëgguñ ci woon lu dul ngërëmul yàlla ak topp yonent bi kon nag yëlluwut loolu ñu di ko ndamoo ci kaw nit ñi ak di gudd gudd lu ci seen kaw na ngeen xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci Quraysh la bokk ay waa këram ñoo ñu ci gën a yàlla wax dëgg yàlla giñ naa ci yàlla ni mbir mi kenn du ma gis ma di ko xëccoog ñoom foog ba ba ba abadan ragal leen yàlla te bu leen wuteeg ñoom bu leen xëccook ñoom mbir mi Aboubacar ci xikamam ba mu bëggee yëf si dakk juyoo gi bi mu bëggee mu dakk dafa daal di jóg ni ñaara ngi nii ñoo xam ne ku ngeen ci jaayanteel rek baax na muy Omar ak Abu Ubayda ibnul Jarrah ku ngeen ci tànn rek na ngeen jaayante ak dana baax ñoom ñaar ñooy ñu ma ñu maase ni mbir mi kay xalaatuñu koo falu ta nga di fi nekk ndax yaa gën c saalis nay isfuma fil xaar yaay kóotaatu yonent bi ci julli te julli mooy li gën ci dine jullit yi kon bi mu la ci xasee jiital rek kenn waratu laa jiitu ci benn mbir wala kenn di jiite mbir mi ngay nekk ci ginnaaw léegi ni ko acci tàllal sa loxo Omar bi mu waxee lan ne Omar ni tàllal sa loxo ñun ñu jaayante yow ñu demee ba bëgg a jaayante moom ka ñuy wax Bachir ibnu Saad daal di jëkkante jaayante ak Aboubacar kon Bachir ibn Saad mooy ki jëkk jaayante bi Aws gisee li Bachir ibn Saad def ak li waa Xuraysin woote ak li waa Xasraj di sàkku ci bëgg a jiital Saad ibn Ubaada ñu daal di waxante ci seen biir ngir xam ne ni kattan gu toll nii séddale ko dafay doy dal bir ca saasa it la Omar jóg ni xëy xeeta mukk ci àdduna laa yajtamiu isnaani fii xarani ñaari gileem kenn ci genn gu Omar daal di gaaw jaayante ngir xam daraje Aboubacar ak nangu nga neelul Aboubacar noonu la nit ñi tàmbalee di jaayante ak Aboubacar wet gu ne mbooloo dafa jóge di ñëw ba yoon yi daa mujj xat Omar moo doon wax ni bi ma demee ba gis giirug aslama ñu ñëw rek laa ni kon jeex na ñun ñooy ñooy gañe léegi nee na nit ñi tar eh, raj rajloo bu ñu doon raj rajloo dañoo mujj di xaw a dégg Saad ibn Ubaada moom nga xam ne moom la fi lansaar yi indi woon ngir jaayante ak moom te fekk dafa feebaroon daanaka dañoo mujj ci kaw ko ñaaj di ba mujj na mënatut a jóg léegi digganteem ak Omar it ay coow am ca waaye ginnaaw bi lañ jël Saad yanu ko yóbbu ko këram bàyyi ko fa ay fan ginnaaw ba ñu yónnee ca ni ko ñëwal jaayante si ndax nit ñëpp jaayante nañ sa waa kër jaayante nañ mu ni man xanaa ma fett leen li ma yor ci ay bali fett ba mu jeex tàkk de ni leen bu fekkee ni li ma yor ci bant fett jeexut de ñu fettante ko ba mu jeex ngeen rayam ba ma ray leen de du ma ñëw di jaayante rek sax te it bu boobaa it su sama bant set jaxe li ma yor ci jaasi dinaa leen ko dóor ba dootuma amati jaasi lu ma yor ci xeej ma dóor leen ko ba dootuma amati ay xeej ànd ak sama waa kër nag ak ko mën nga topp ci sama waa kër xeex ak yéen ba amatuma pexe waaye du ma ko def jënd yëpp bañ dajale woon ak nit ñi du tax ma ñëw jaayante sa yéen léegi daal xanaa ma dem ba ci sama kanam borom ma xam lu may teg ci xisaab waaye xalaatuma ñëw loolu yi la sàdd tontu ña ko doon woo bëgg mu jaayante ak Aboubacar ginnaaw bu mu xamee ni jaayeen ñëpp jaayante ni waaye nag mu mel ni gàntal googu daanaka amul benn njariñ ndax lansaar yi jëbbul nañ ba ci nit yi boppam sax jëbbul nañ bi Aboubacar xamee loolu li Saad wax Omar it ni Aboubacar boo ko bàyyi te jaayante si parce que li muy def ci ko fen Bachir ibn Saad ni leen bu leen sulal seen bopp ndax xas na ba nit ba noppi te lànk nañu du jaayante si wóor na ma ni bu ngeen ko doon rey du jaayante ak yéen te du ngeen ko rey xanaa du ngeen ko rey te rëyu leen ay doom yëpp bu ngeen ko naree rey doom yëpp dinañ dee ngeen door koo rey ak waa këram it jaral na leen ko danañ dee ak bañ kuréel nag ci ay mbokkam bàyyi leen ko yéen bàyyi ñu ko bàyyi du leen wàññi dara ndax kenn képp la li mu waxee loolu moom Bachir ibn Saxd nag ñu jëfandikoo xalaat boobu daal ne ah, kii de li mu wax dëgg la xalaat bi rafet na Ali ibn Abi Talib moom itam moog Banu Hashim des nañu juróom benn weer yoo xam ne jaayante wuñu ak Aboubacar ba ni soxna Fatima euh, wàcce noppaloo lañ door a jaayante dañu wax ne Fatima dafa yónnee woon ci Aboubacar di ko laaj ndonoom ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la lam amee woon lam bàyyee woon ci Madina ak di ko laaj wàllam ci xumus ba mu jëlee woon ci xaybar Aboubacar bañ ko caa jox dara ngir dañu ko ah, yonente bi kat nee woon na lu nu fi bàyyi sarax la waaye kenn du don ginnaaw nag loolu yonte bi wax yéen amu leen ndono loolu yi ci la soxna si meree Abu Bakar waxaatut ak moom ba ne mu fi bàyyi ko Ali ibn Abi Talib it la mu gisoon mooy moo gën a yaay ci xilaafa gi ci Abu Bakar ngir moo gën a jege yonente bi loolu moo tax mu yéex a ñëw jaayante si jiital gi ñu jiital Abu Bakar teg nañ ko ci point yu bari ndax yonente bi bu ñu wéradee bu mënta ñu julli si dañu digal leen Abu Bakar mu jiite nit ñi soxna Aïcha ne ma ne ko Abu Bakar day dafa doon ko woyofu xol kàddoom dafa woyof bu ñëwoon di jiite nit ñi fi ñu toll nii nit ñi duñ xaw a dégg li muy wax ngir ay jooy yent bi tegaat ci ni digal leen Aboubacar mu jiite nit ñi nee leen Aboubacar ne leen jiite nee na soxna si waxaat ko la ko waxoon yent bi sax ci kàddu googu jiital gëm jiital Aboubacar ci julli gi nag ab junj la ci ni Aboubacar moo war a doon xalifa ci gannaaw Zubayru dal di wax ni man di sama jasi ji duma ko duggal ci mbaram mukk te aliyun jaayantewut omar daal di ne ni jël len jasi ji subayr yor tek ko ci suuf gëna bi ko jëlé la umar dem ba ci ñoom ci ñek ak tranga mu jël len jiital len ñu ñëw pour jayante ci lolu kon moy li xew ci mbirum sayiduna aliyun ak len ci ahlul bayt bokku ne ci ñi yeexona jayante ci si ak abubakar wadba ibnu abi ak Khalid ibn Saïd ak Miqdad ibn Amr ak Salman al-Farsi ak Abu Dhar Ammar ibn Yasir al-Barra ibn Azib Ubay ibn Kaab ñoom ñëpp dañoo taxawoon ànd ak Aliyun jàpp ni moo war a doon xalifa kañ la wax Abu Yusuf ci Bani Umayya it bokkoon na ci ñi yeex a jaayante si kon fii des na fi mën a taxaw ba yeneen jëmmi jamono ñu eggaleel leen li gën a rëy ci liggéey yi Abou Bakar taxawal ginnaaw bu mu doonee xalifatul muslimin di ñaan yàlla mu defal nu ak diggaagu topp yàlla mu defal it ak jariñu di ñaan yàlla it Mawlana sunu kilifa ak Cheikh Salih Mbacke yàlla yàggal ko fi lool te tamay ko ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi dellu waat di sant yàlla di julli ci yonent bi di leen nuyu di ñaan yàlla mu defal nu jàmm te defal leen ko di ñaanit sëriñ Salihu Mbàkke mi yàlla teg ci sunu kanam yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram xam ngeen ni bi seen weesu ñu ngi tàmbali woon xissatu sayidina abi bakrin siddiq euh, waxtaanoon nañ ci ba toll ci fiñ jaayante ak moom ginnaaw bu ñu jaayante ci bis bu jëkk bi te mooy jëkk ñuy denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nit ñi jaayante bam ba jaayante gi wér lañu door a jublu ci waajal yonante bi denc ko waajtaay wi yaakaar naa waxtaanoon nañ ci ci jamono yi andi rasul ba tax na du jar euh, defaat ay leeral kon yonente bi ñi ngi ko daldi denc ñi ngi ko denc guddig àllarba wax nañu ni dañ koo sang ci kaw ay yéreem abbas ak kañuy wax alfadl ak xusam ñu ñaari doomam lañ ñoo doon jàppalante ci euh, yéwénal ko ak usaamatu bnu zayd ak ku ñuy wax chiqraan te moom itam ab surge la woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kañuy wax awsubnu xawli al ansaar yi teewe na ko ñi ngi ko doon waajale ci teen bu ñuy wax al xaras teen boobu nag Saad ibnu Xaysama moo ko moom ma nga ca Quba Abbas ak ñaari doomam yooyu ñoo doon wëlbati yonent bi Usaama ak Shaqraan di sotti ndox mi Ali ibnu Abi Talib di ko sang ci kaw mu mi sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy sang it mi ngi wax ni bi abi anta wa ummi ma atyabaka hayyan wa maytan jote naa la sama ndey jote naa la sama baay dara gënu laa teey ci jamonoy dund ak ci jamonoy dee bi ñu noppee ñu sàng ko ci ñetti mbalaan yu jógee yaman yu weex yu bàyyi ko ci wëttin wax nañ ni càngaay la nag mbubb amu ca kaala amu ca ginnaaw bu ñu ko sangee moom yonent bi ba sàng ko dañ ko teg ci kawub lal jullit yi nag di ñëw bari mbooloo ñu ñëw rekk jullee ko daldi di génn ñeneen dugg si waat wax nañ ni benn ilimaan jiitewu leen ci julle gi biñ demee ba góor ñi jeex jigéen ñi dugg si ka jëkk dugg mooy abu Aboubacar ak Omar biñ duggé yit lañ wax moy assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh eh, mbolo mu bok ci muhajirone yi ak lansaar yi and ak ñom lu toll ni eh, li xacca néeg barek ñep dugg nañ ni abubakar nuyo non la omar nuyo mbolo mi yit nonu lañu nuyo ñom itam ñu rang rang bu jekk waaye kenn ku ne dafa rek eh, jete amu ci comme non mako waxal kon ginnaaw bu loolu jàllee nag ba abu Aboubacar delluwaat ca suba sa nag muy guddi googu ñu ko dencee ca suba sa wax nañ ni biñ demee ba ñëpp jullee ba noppi doon nañu werante ci fuñ ko war a denc waaye Aboubacar ni dégg naa yonent bi mu wax ni day amul benn yonent bu muy jël ak room te du dañ koy denc fa ñu ko jële Aliyu ni waaw man mii de loolu dégg naa ko loolu moo tax ñu yëkkati laltaay gañ ko lalaloon dal di koy denc foofu sallallahu alayhi wa sallam kon gannaaw bu ñu ko dencee ba noppi nag ca suba sa la nit ñi ñëw Aboubacar dem ci jàkk ja ñu jaayanteeg moom jaayante gu matale gannaaw bu ñu jaayantee ba noppi nag xutba bi Aboubacar def moo nekk nii dafa dal di yéeg ci kaw mimbar bi dal di sant yàlla tagg ko daan yéen ñi de mbir mi féetale ngeen ma ko féetale ngeen ma seen mbir te xam naa ne gën ma ci yéen gënuma leen kon nag su ma defee lu rafet na ngeen ma dimbale su ma wàccee aw yoon na ngeen ma jubbanti dëgg nag nekk ci dëgg dana tax nit a am kóolute waaye fen nag moom xeexaana la ay wuruj la na ngeen xam ne nag nit lu néew néew doole ci yéen moo am doole fi man ba ba ma koy jox dëggam waaye nag boroom doole yit de na ngeen xam ni bu nekkul ci dëgg mooy ki néew doole fi man ba ba ma koy teg ci aw yoon incha allah daal di nag kenn ci yéen du bàyyi ji bu mu bàyyi jihaat ndax jihad di mbolo mu ko bayyi rek yalla dana leen turaxal be len ma top nak li fek ma ngi top yalla ko yonentem waye sa bu ma moye yalla ko yonenteem nak ak top waratu len ci man bi mu waxee loolu bismillah dug len julli ji yalla len yalla yàlla kon lolu moy khutba bi Aboubacar def kon Aboubacar xam ngeen ni khilafa gi yagut ci ñaari at rek lay tollu waaye nag bari na lool ay jëf yu am solo yum ci jëf li gën feeñ ci yam jëf ba ci jëkk mooy wéyal yónni gi yonen yonente bi yónni woon armam Usaamatu bnu Zayd wéyal gu ko Abubakar wéyal bokk na ci li ëpp solo ci ay jëfam lu bari ci nettalikat yi استوالي دنيا واحد يرن تبي سانسون دفع يبلون أسامة بن زيد رضي الله عنه مو عندك جوم نار تيميري جمبار مو يبلين شام بام دمي باتولو تبير بني واخ زي خشب دا ديغ ني ني يوننت بي دافا ويردي بو متاخر لو فافا ابدير لا يوننت بي نوبلو لولو magi saxaaba yi daje di xalaat te araab yi it ñu ci bari dal di murtad ndax am na ci ñoo xam ne dañoo wax ni kii du ab yonent ndax bu doon ab yonent du dee ñan ñi ni ñoom xam nañ ni ab yonent la waaye nag asaka yiñ daan joxe moom seeni alal moom duñ ko joxati kenn mu doon ak jaaxle Abubakar dajale magi saxaaba yi waxtaan ak ñoom ci luy pexe ñoom ñu ne ko gannaaw araab yi dañoo murtat ñu ci bari murtat nañ Usaama mi doon waaj a dem moom dañ ko war a wax mu dëpp bañ lijjanti lii ba noppi waaye am na lu mu ca teg leen ci yàlla ni leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur budul moom ne bu ma gisoon ay xaj ñuy diri tànki soxna yonente bi sax di du tax ma delloo si arme boo xam ni yonente bi moo ko waajal du ma dëpp arme bu yonente bi waajaloon loolu xalaatuma ko benn drapeau bu yonente bi façon ma di ko fecc déedéet loolu de bokkul ci sama xalaat moom daal ni Usaama na wéy ci liñ ko doon def loo Abubakar euh, sàkku ci Usaama moom mi doonoon njiitul armo bi ni ko dama bëgg nga bàyyil ma fi Omar may diisoo ak ndax dana ma a nekk Usaama jox ko ndigalul mu téye Omar ci wetam di ko dimbandiko noonu Usaama dal di tegu ci yoon wi di ko gunge di ko dénk dox ak moom lu yàgg ba Usaama daa mujj ne ko teemaa wàcc boog nga war mu ko déedéet doo wàcc tudd ma war rek ndax jéego yi may jéggi euh, maa ngi koy fàggoo ab yoon fa yàlla bi Usaama demee géerug arab gum romb da am xalaat ci ni ñii de bu ñu amutoon kàttan mbooloo mu toll nii duñ génne fi ñoom noonu la Usaama demee dajee ak waa Rom xeex ak ñoom daq leen dellusi ci jàmm amuñ benn jafe-jafe loolu mooy li Abu jëkk a taxawal gannaaw bu mu wutee yent bi ci ay jëf yu am solo bu ñaareel bi mooy xeex ak ñi murtat ñu bari dañoo murtat ci jamono boobu ñooñu nag mooy ñi nga xam ne islaam ci seen xol am ci ñoom ñu jàpp ni nubuwa gi ay pexe la rek ñu daal di woote ak nubuwa am ci ñoo xam dañoo wax ni ñun xam nañ ni Muhammad ab yonent la waaye nag suñu alal yi ñu daan joxe asaka nag ñun dootuñu ko jox kenn bay ndaw ya Abubakar yónnoon dañ leen a gàntal loolu nag doon lu diis ci jullit yi ndax arab yenn yi murtat nañu ñu tiit ni Madina yàlla buñ ñëw dal ci kaw ginnaaw bu Abubakar yabalee armu Usaama ba mu dem tiitaange yépp dal na leen wax na ni bi mu di gunge la leen doon dénk dénkaane bii nee leen bu leen wor bu leen mitiital kenn bu leen ray gone gu tuuti bu leen ray am màggat mu dem ba jeex bu leen ray jigéen bu leen gor ak garab ak bu leen ko gor bu len ko lak bu len fek ab gatt yi ngeen di ko rend ma aw nak ma ak gilem te jublu leen ko lekk yak bu len def dara ci yak da ngeen rombo ñoo xamne dañoo wéet di jaamu yalla ñu len tudde ay labbe ñu bayyi len len ak lañu nek nekk bu leen wax dara lolou denkan la bu abou bakkar moko denkon Osama ci jamono bi muy dem biñ nekké ci bir titanga yoyu Aboubacar daal di taxaw temm ci ni kon day xeex ak ñi murtat ndax mbirum mu Kazzab ca Yamaama dafa daal di fes coow la bari fa lool ñu naan ab yonent la ka ñuy wax Tulayha moom itam mboolem girug tayi ak asad dañoo murtat topp ko ñoom itam dañoo murtat ngir topp Uyayna ibnu Hisn ndax Uyayna na dañuy yonente bu bokk ci sun ñaari kuréel yi muy Asad ak Ghatfaan muuma gënal yonente bu bokk ci waa Quraysh te comme Muhammad faatu na tolay xaar nee na ab yonente la te mi ngi dund kon duma fi demaat ci benn yonente léegi kii laay topp ba mu ko toppee diirug Ghatfaan gépp topp ko ci moom Uyayna ibnu Hisn moom yi léegi nag ndaw ya yonente bi yabaloon ci béréb yooyu muy Yamaama yabaloon leen ca giirug Asad ak ñeneen daal di indi seeni bataaxel ci Abu Bakar xamal ko xew-xew ya xew loolu nag lay Abu Bakar dogoo ci xeex ak ñoom bi mu ci dogee mu dajale saxaaba yépp diisoog ñoom ci ni leen lu ci seen xalaat waaye xalaat yi wuute Omar ni ko waaw ana nooy xeexeek nit ñi te yonente bi da newoon na dañu ma digal may xeex nit ñi ba bañee seere ni yàlla rekk buur waaye bu ñu ko xasee wax nag seen deret ak seen alal mucc na ci man ndara ci àqam te loolu yàllaa leen di esaabal boppam Abubakar ni ko diggante julli ak asaka de ku ko xàjjale danaa xeex ak yow ba ba ngay dellu si ndax asaka mooy àqi alal daal ni buum guñ daan jox yonente bi képp buñ ma ko teree dinaa xeex ak ñoom ba ba ñuy dellu si waat Omar nee bi ma gisee nag xolub Abu Bakar moom yàlla leeral na ko ci xeex ci laa xam ne xeex bi mooy dëgg xeex ak ñoom mooy dëgg Abu Bakar ni ko waaw yow Omar ana nu ñuy def wax yu gi moom dagg na yonente bi nekkatul diine mat na sëkk di wax yu gi jeex dañ fi nekk dund wax yu gi di mbir mi di wàññi ko ci suñu loxo ne ko loolu sama xel xalaatu ko daal di jóg fas yéene xeex ak ñu ñi nga xam ne dañoo murtata jële nañ ci soxna Aïcha radiallahu anha mu wax ni bés boobu bii day bés bu tàng-tàng la sama baay dafa génn ci jaasim war ci gëléem bi fas yéene jiite xeex bi Ali ibn Abi Talib ñëw ba jàpp ci nosub giléem gi ni ko dencal si jaasi jii dama lay wax la la yonent bi waxoon ci bisub Uhud mu ne ko ah mu ne ko dencal si jaasi ji laa lay wax loolu la la yonent bi waxoon ni ko bul nu jàkkaloo ci sa bopp ndax waat naa ci yàlla yow fii nu toll nii buñ la rayee islam dootu taxawati mukk benn programme dootu fi amati ibnu xutayba ni arab yi bi ñu murtatee ñu bari dañoo murtat ba mu des lu néew a néew abubakar xeex ak ñoom bañ teguwaat ci yoon moo fatxu al yamaama rey musaylimatul kasab kon noonu la abubakar taxawee ci xeex bi ana num num demee nam ko nose bi Osama dellusee la abubakar daal di programme armo yi mu war a yebal daal di fas drapeau yi فاسنا فك درابو اك بن مو فاس بن دوكو خالد ابن الوليد يابل كوتا طليها ابن خويلد الاسدي نيكو بو نوبي تي موم نغا دم تي مالك ابن نوير موم تام دغنا ني مرتدنا نارل بي موي عكرمه ابن ابي جهل مفصل كو عبد الرابو يابل كو تي مسلمه الكذاب نتل بموي المهاجر ابن أبي أمية ميبال كوتي سولداري العنسي الأسود العنسي نيكو بوفا جوغي غادم كندا تا حضرموت بو نينتل بمو يبال خالد ابن سعيد نيكو ندم تا بيغي سام جروميل بي عمرو بن الحص ميبال كوتي خضاعة اك وديعة جروم بنل بي ميبال حذيفة حذيفة ابن محسن يبال كوتي وادبا juróom ñaareel bi mu yebal Arfaja ibnu Harsama yebal ko fa ñuy wax Mahara juróom ñetteel bi Surahbil ibnu Hasana mu yebal ko mu topp ci ginnaaw Ikrima ibnu Abi Jahl juróom ñeenteel bi mu yebal Ma'nu ibnu Haajiz mu yebal ko ci Bani Sulaym ak ñañ àndal ci waa Hawazin fukkeel bi Suwayd ibnu Muqrin mu yebal ko Tihaama ca Yaman fukkeel bi ak benn mu yebal al Ala ibnu al Hadrami ca Bahrayn lépp des na ci jaar ci ak gàttal waaye noonu la Aboubacar taxawale xeex bi mu doon xeex ak ñi murtat kon ñooñi ñooy ñi Aboubacar tànn ngir ñu xeex ak ñi murtat kenn ku ne mu fasal la ab drapeau jox la kon noonu ñu indee fukk yooyu ak benn rek teg la leen daanaka xeeti arab yëpp Aboubacar yónnee woon na ci ndax daanaka ñëpp a murtat kon mu doon itte ju rëy yàlla teg ci loosu Aboubacar doon it itte ju rëy jum teg ci loosu ñi nga xam ne ñoom la Aboubacar yabal war ngir ñu war ko lijjanti bi loolu jàllee Madina kon ñu néew fa des force bu néew moo fa des Aboubacar des ci maddina yabalul Omar yabalul Ali ibn Abi Talib ak Zubayr waaye daf leen a desal ci wetam ngir di diisoo ak ñoom béréb xex yi nak bi ci ëpp importance moy xexu bañi wax xexu xeexu bu bakkar dafa yabal Walid ngir mu xexi dafa yebal Xaalid ibnul Walid ngir mu xexi ak Tulayha niko bo boo nga dem ca Malik ibn Nuwayra ca mutah Xaalid yebal Ukaasha ibnu Muhsin ak Thabit ibnu Akram ñoom biñ jiitoo xibaal mi doon mbokkum tulayxa dajeeg ñoom bi ñu dajee ñoom ñaar ñu ñu rey mbokkum tulayxa moom tulayxa moom nga xam ni ca la Xaalid yeble woon ngir di ko woowaat ci diine bëgg bu nangoo dellu si baax na bu nu wut dellu si ñu xeex ak moom ñaar ñi mu yabaloon dañu daje ak mbokkum tulayxa benn mi magam mbaa rakkam biñ dajeeg moom dañ ko rey tulayxa dégg ni am na ndawi Xaalid yu rey rakkam mu daal di génn moo mbokkam mu ñuy wax salama Tulayha moo rey Wakaasha ibnu Muhsin mbokkam moom mi mu àndaloon rey Saabit ñu daal di leen di rey daal di delluwaat Xaalid bu ñëwee ba agsi fekk ñaar ñooñu ñu rey leen jullit yi am lool njàqareel xol am lu leen naqari ñu daal ne ah, ñii ñaari kilifa ci kilifa jullit yi ñu rey leen Xaalid daal ànd ak armo bi jëm bu saaxane continué daal di ak armo Tuleyha fekk Tuleyha waajal na ko moom itam xeex nañ xeex bu tar Tuleyha bi ñuy xeex mi ngi muuru daan kaalawu di di di lëmasu ba kenn du ko gis daanaka di woote ni ab yonent la Uyayna ibn na moom ko doon jàppale di xeex ba xeex bi tar ba tar boobu mi ngi ànd ak juróom-ñaar téeméer nit di xeex ci ñu bokk ci benn fasara di ko jàppale ci xeex bi bañ xeex bi tar na ñëw ci Tuleyha ni ko waaw ndax jibril ñëw na Tulaaha ni ko déedéet ñëwul mu dellu continué di xeex di xeex di xeex mu jaam mu jël sax ko ñàkk ful la jibril ñëwagut mu ne ko déedéet ñëwagut léegi oyee na dellu di xeex ba mujj mu del sax ko eh dégg nga ngi bëgg a sonn nag jibril ñëwagut ba tey mu ne ko ah kay jibril ñëw na mu ko lu mu wax. lu la jibril wax mu ni ko nee na ma danga am da am ndënd mu mu mel ne am ndëndam da nga amit waxtaan woo xam ne doo ko fàtte ah yaay na ne ko yàlla xam na ne da nga am waxtaan woo xam ne doo ko fàtte daal ni waa ba ni fasara dëpp leen ñu dem kii ab fenkat la ne la mbooloo mu daal mbooloo moom àndaloon moom mu juróom-ñaar téeméer nit yem àndaloon ngir jàppale ko dañoo daal di topp ci ginnaaw ñu dem seen mu doon woote yonante gi préparé woon aw fasam waajal it ak gileem waajal it ak gileem ngir soxnaam suñuy wax nawar waaye bi mbooloo mi këppoo ci kawam ba gisut lu mu xam mu waru fasam soxna si waral fas soxna si war ñu daal tëgg burti mu daal ne eh yéen bani fasara ku ci mën a def nii mucc mook soxnaam na ko def noonu la Tulayha dawe dem làqatu ji saam ba demee mu wàcc ci jërug kulab waaye ginnaaw bi mu dégg ñi ni asat ak rattaan ñëpp jëbbalu nañu mu dal di jëbbalu foofu la nekk ca kulab ba ni mu dee ba ba ba ba ni Aboubacar faatu wax nañ ni romb na foofu ci peggi Madina doon aji doon omra ji ñu wax Aboubacar ni ko tulay xaa ngi nii Aboubacar ne ah, lu ma ci lu may def ci moom comme jëbbalu na gëna jëb naké baxna bi Khalid ibn Walid gagné Tulayha momi ak Bani Fasara dañ daal di ànd ñoom ñëpp di ka daani la génnoon dugg waat nañ ci kon gëm nañu ub yenen ci ta fas nañ yéene nangu ab atteem ci sunuy alal ak ci sunuy bakkan ña lu ñëpp daal di jaayante ak Khalid jir yu bari daal di jaayante ga it yax ba mooy lii xaalit dinaa leen kule rek yàlla war na leen ni da ngeen gëm yàlla gëmub yonentam da ngeen taxawal julli da ngeen joxe asaka te da ngeen jaay seeni doom ak seeni soxna it da ngeen leen jaayanteel ci loolu waaye nag ba ñuy jaayante it nag giruk asad googu ak xatfaan koo ci xam ni lakkoon nga këri yi mbaa nga nitiitaloon ab jullit mbaa nga jalgati woon islaam day wax ne nañ ma ko andil buñ ko andee mu lakk ñan ña ñenn ña mu toj seeni bopp ci ay doj ñenn ña mu yéegal leen ba ca kaw doj ya mu xalab leen ñu xalambaayu daanu ñenn ñi mu jatt leen ci ay teen dal di yabal yónnee ca bakar wax ko ni mu doxale ne ko jébbul nañ waaye ña ci jotoon a def yu ñaaw ci jullit yi buñ bañ mortatee lu mel ni lañ leen defoon fay naa leen ko loolu kon mooy ni Xaalid doxe ca busaax ni ko loolu ni ko foofa leer na lijjanti nañ ko léegi kon mu des Yamaama te kañuy wax mu Musaylimatul Kazaab nekk fa Musaylima nit ku tuuti la woon di ñaaw kanam ni dafa ñëwoon ci yonente bi ànd ak délégation Bani Hanifa bi mu ñëwee ba gis yonente bi ba jëbbalu daal di delluwaat ca dëkkam ba mu delloo nag la woote ni moom dañ ko booleeg yonente bi nu wooy léegi ab yonente la comme moom ba mu ko wootee it Banu Hanifa nangu ko caa topp mu bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leetar di ko wax ni ko moog moom ñoo bokk yonente gi léegi يبل ناري ندو تي يونت بي بين دم يونت بي لاج لين ين يين نوين كو جابي ني دغال كو نيكو ني كاي گم ني اب يونت لا يونت بي ني لن دما خامل ندو وري سوكو راي دي كونت نالين راي ندو ندو لي نيلني كامورو كو راي ني كون ما راي لين لتر بي لين مسيلمه يوني اون مو نيك ني دا فا بنت ني مسيلمه رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون نقول لا تربيه نيجي جوجي تي مسائل مميرون يونان تبيالا جمتي محمد dañ ma ko ak yow léegi genn wàllu suuf si noo ko moom waa Quraysin moom genn wàllu suuf si waaye nag waa Quraysin dañoo doon nit ñuy jalgati yeneen te bi leetar bi ma ko tontu mooy bismillahi irrahmani rahim min muhammadin rasulillahi ila musaylimatal kazzab amma baadu فالسلام على من اتبع الهدى فإن arda lillahi يورثها من يشاء من عباده عاقبة للمتقين وبين بسم الله الرحمن الرحيم بتاخر بي نيغي جوغي تي محمد مي ندول يالله جيم تي مو سايلي مامي دي فنكات نيكو ماغي نوي كيب كو نانغو توپ اك نيب يلا خمال ني سوف سي سوف سي الله موكوي جوخ كوكو نيه تي اك تي اي جام موجو موجو رافت نك ني اموك ركال يالله نيوكاي ام تي كاو سوف بيونت بي صلى الله عليه وسلم فاتو أو بكر يبله تيمو تيمرتد مي عكرمه ابن ابي جهل كوم مما كو واخون تي بنغي مو اندكوب ارمو مو يبالين تي مسلمه في كذاب غينا بام كو يبالي مو فصل شرح بي ابن حسن اب درابو نيكو nga top تي عكرمه غير لولو اي بلان دي غير دي ñu jiitoo ñu dem ba nekk di war a sonn ñi leen di jàppale door a waaye Ikrima ibnu Abi Jahlin ba mu demee moom dafa dajeek Musaylima rek mu gañee ko nga ñaay lu métti dal di koy dàq ba mu ko dàqee léegi Surahbil ibnu Hasana bi mu agseegul dégg nañu ni gañe nañ Musaylima mu daal di toog ci yoon gañe nañu Ikrima mu daal di toog bañ bañ àgg Ikrima bi mu bindee Aboubacar lettre di ko xamal ni ko ñun kat dañoo dem waaye dañoo ëpp doole Aboubacar dañu ko fexeel ba bu ma la gis bu ma gis bu fi del si mukk di manqué nit nga jógee foofu jàll ca Xusayfa ak Urfa ja dem jàpp jàppale leen ngeen waa Oman ak Mahara te dem fekki Muhaajir ibnu Abi Umayya ca Yaman ak Hadramaut waaye bu fi jaarat ginnaaw bu mu bindee tontu loolu yi yónnee ko Ikrima ibnu Abi Jahl la bind bataaxel Surahbiil fam tax fam nekkoon ni ko na nga fi toog yow ba Xaalid ibnu Walid fekk la fi bi Xaalid jógee ca Butaax ñëwaat ci Abubakar daal di sàkku ak njëggal ca tuuma yi ñu ko fa tuumaaloon xaj loolu sax mënees na ci bañ defal ak guddal mënees na ko gàtt ndax dañoo wax ni dafa am ku ñuy wax Malik ibnu Nuwayra dañ koo jàpp ba indi ko ñenn ñi ni wax na ni ashhadu an laa ilaha illallah seere na baati ngëm yi ña jëles ni déedéet seere wu ko bi ñu nekkee ci biir lënt moom yi ñu denc leen di xool nu ñu ciy def mu doon guddi gu sedd bi ñu leen waxee ni leen nugal mm, nugal leen prisonniers yi fekk baatub nugal boobu moom ak rey lay tekki ci làkku birab boobu ñu daal di leen di rey biñ leen reyee nag Xaalid amul lu may dégg yoo xam ne mu ngi lu mu doon ñu ne ko rey nañu mbooloo ba mu ne ah loolu de mooy yàlla dogal yàlla bu dogalee mbir lam dogal rek am. waye nak bañ fa daataan joge tak gam tak soxna Malik ibnu Nuwayra tam doon soxna su rafet loolu mo andi ciowle ndax Omar ci sase xam ngeen Omar ko amul tàng la dafa daal wax ni abou bakkar khalid de jassem khumagna ndax rayna jabar ak julit rayna ab julit tak jabar niko nak fokk foog nga lijjanti ko Aboubacar ni ko Omar teggel salam ni wi ci khalid man de giñ na ci yàlla ni du ma du ma du dencaat jaasi joo xam ne yàlla moo ko bocc ci kaw ay ay ay noonam léegi nag loolu ne ko Omar teggeel sa làmmiñ wi ci xaalit man de giñ naa ci yàlla ni du ma du ma du dencaat jaasi joo xam ne yàlla moo ko bocc ci kaw ay ay ay noonam léegi nag loolu am na ci ak jaaxle moom xaalit ndax cooli bari na ba mu fa jógee nag dafa ñëw bi ñëwee wax ne ñu ngi sol benn manto nii kaalawu kaala gu rëy samp ci ay banti fet waaye bi ñëwee Omar dafa daal di ñokket ñokk ci banti fet yi dammute ko ni yow yaa ngi rey ab jullit takk jabar ñëw fi di fonton yi la waaye ba mu demee ci Aboubacar wax ko njuumte ya am Aboubacar jéggal ko daal di ko yabal ni ko na nga gaaw kon dem fekki Surahbiil ca foofee nekk ngeen dem ca Musaylimatul Kasaab kon loolu mooy gàttalu Xaalid bi ñëwee jéggalu Aboubacar mu jëggal ko daal di koy booleek mbooloo ci muhaajiroon yi ak lamsaar yi ñu daal di fekki Surahbil ci fam nekk ngir ñu mën a ànd dem ci Musaylima lansaar yi mi ngi ci jiital armub lansaar yi mi ngi ci jiital Saabit ibnu Qays muhaajiroon yi mu jiital ci Abu Husayfa ak Zayd ibnu Xattaab léegi Xaalid toog bu taax xaar leen ba ñu ñëw bi ñëwee mu daal di ànd ak ñoom ñu dem Yamaama Musaylima bi mu déggee ni Xaalid mu ngi ñëw mu dal di euh, dajale ab armoom ca fa ñuy wax xaqriba armo bi matoon nañ ñeent fukki junni ci ay nit bañ xëyee nag ñaari armo yi daje ci jorug xaqriba ñu xeex fa xeex bu tar jullit yi mësuñoo gis xeex bu tare noonu ba daq nañ leen sax ñu gañe nañ leen ci njëlbeen gi bi leen ba mbolo di daw ñan ñi di len soñat kañu wax sabit ibnu xays ni len yeen de li ngeen tamal seen bop ñaawna na lu jog rek ngeen daw yeen jullit yi tamal ngeen seen bop lu ñaaw ndax lu jog ngeen daw Seyd ibnu khattab ni len man de fasna yeen dutuma waxate kenn du dañ leena dak rayma bu ma bu ma raye nak suma ci kanam yalla dina xam lamay lay أبو Xusayfa دال di jóg ñu ne ay waa ji yéen waa ar yéen niti alxuraan yi tey ngeen a rafetale alxuraan ay jëf te bañ a yem ci njàngum kese kese mi rek. mu mel ni baat yooyu nag baati soññee la yoo xam ne am دال jeexit ci xeli nit ñi Xaalid jóg mel ni dafa yeesat daal di jóg dal kuy kuy xaru lañ doon xex kéro xeex bu tar yiisaa jullit yi gañ yiisaa ñoom ñu gañ noonu la doxee foofu lañ reyee Salim fa lañ reyee Abu Xosayfa fa lañ reyee Sayd ibnul Xattaab ak yeneen kilifa ci magi magi saxaaba yi Xaalid nag bi mu demee ba xam ne mu rey Musaylima képp moo mën a andi jàmm la taxaw tem mu ci ni nañ fexe ba ko dem songu leen ak doole daal di taxaw woote woote bi booba yaa muhammadaahu la ñuy woote yaa muhammadaahu kenn génnut ku génn rek mu faagagal daal di dal daal di jóg riir wuti Musaylima Musaylima daw ba mu dawee ña topp ci ginnaawam daw Xaalid topp ci seen daal di yuuxu jullit yi ni leen dal leen seen kaw ñu songu leen ak doole. ka ñuy wax Muhakkam ibnu Tufayl ca nit yi ma la bokkoon daal di woote ne eh, yaa bani Xanifa gaaw leen dugg ci sardin bi dugg leen ci tokkoor bi dugg leen ci tokkoor bi Musaylima bokk ci mbooloo mi duggoon ci tokkoor bi waaye ba ñu duggee ba mbooloo duggee ci tokkoor ba saxaabi yi ba ñuy wax Barra ibnu Malik daan daal di wax jullit yi leen tàbbal leen ma ci biir tokkoor bi fekk dugg nañ ci tokkoor ba tëju moom mu ne tàbbal leen ma ci biir tokkoor bi ñu tàbbal ko ci biir tokkoor bi mu xeexe ñoom ba àgg ci bunt ba tëjji ko bi bunt bi jullit ji dugg seeg doole bi ñëpp duggee mu tajaat bunt bi fab caabi ji sànni ko ci biti ngir bëgg kenn bañ a jël xeex ba tarfa lool bañ rey Musaylimatul Kazzab mbooloo mu bare ñu rey leen daanaka noonu la ñu gañee matul Kazzab bañ ko reyee xaalis sonn na ñu wax ko ko ni ko rey nañ ko mu ànd ak nit ñuy wër ci biir mbooloo mi ba gis mu xam ni mi ngi nii mu gis ni rey nañ ko wax nañu ni pertement yi nga xam ni bani xanifa perte nañu ko bari na waaye dañ ca takk juróom-ñaari junni nit rey nañ ko ca béréb bañ dikkoon nekk muy ba gannaaw bu ñu dawee ba dugg ci biir tokkoor bi nattale nañ ñi ñu faray mat nañ juróom-ñaari junni nit waaye jullit yi it diggante muhaajiroon yi ak lansaar yi rey nañ ci lu toll ci juróom benn téeméer juróom benn fukk te bokkut ak ñi nga xam ne dañoo blessé ñi nga xam ne ñooy ñi siiw ci saxaaba yi rey nañ ci lu mat fanweer ak juróom-ñett moom itam lim bi damay jàpp ne du am importance loolu moo tax jërul tudd seen i tur noonu bi Xaalid continué ngañaay yooyu mu doon gañe ci wàllu càmmoo ñu sibxul jazira te fekk wedd ya ca desit Aboubacar yabaloon na fa ay nit ngir ñuy xeex ak ña murtat ca côté boobu waa Bahrayn murtat nañ ka ñuy wax al Munzir ibnu Sawa moom la yonent bi yabaloon ca Bahrayn mu daan fa mu wuutu woon ko fa ci jamono jamono ba fi yonent bi di nekk rek moo fa nekk wuutu ko fa waaye nag gannaaw yonent bi tuuti rek la feebar daal di faatu waa Bahrayn daal di murtat جير بكر مرتد فلا أبو بكر يبل العلا ابن الحضرمي أي ممتم مخيها جنم خيها بطر كان يوى قيس بن عاصم نيو فكسيكو حمر أك سعد بن تميم فكسيكو نوني لن عندك موم خيخ بطر بفتح البحرين رأي نيغا خمي نيو مرسطن doxalaat sa islam daal di bind lettre abou Aboubacar yónnee ko ni ko li nga nu defal loon def nañu ko waa Amman murtat nañ foofa far ibnul Jalanda moo fa nekkoon ba mu fa nekkee nag Laqit ibnu Malik murtat daal di woote ak nubuwa daal di leen di not Jayfar yónnee ci Aboubacar di sàkku ci moom mbooloo mu yebal fa Xusayfa ibnu Muhsin الغلفاني تي حمير اك عار فجا نيو فكي كو فوفي ني جابليو وايا من مرتد نني كاني واخ قيس بن عبد ياوس تي يمن مومي تام بيم دجيني يوننتي بي فاتنا دا فا دال دي مرتد بي مرتد فيروز ما فا نيكالون يوننتي بي بيند لاتر ابو بكر ليرال كوكو قيس يمو تي مرتد وايا دا فا دال دي تامبلي دي ساري نيت ني دي يقا bi fayroz xamé loolu nak la dal di jox sax taxaw tem ci xex ak mom dal di yone ci bani haqil ibn rabia ak ca di sàkku ci ñom ndimbal ko dimbalé mu ak khays ci peggu sana ñu xex fa xex bu tar ginaaw bi da dak khays ak ñam àndal gañe leen Hadramawt Hadramawt moom itam ku ñu wax al Ash'as ibn qais dafa ñëwoon ci yonente bi ànd ak délégation Kinda jóge Xadramawt ñu jëbblu sàkku ci moom mu yabalal leen ku leen jàngal sunna di jël asaka yi mu boole leen ak Zayaat ibnu Labit mu nekk fa waaye bi yonente bi faatoo achans moom yi daal di firi jaayante gam jaayante woon nanguwuute jaayante ak Abubakar jëbblu gam jëbbloon mu dal daal ciy génn nanguwuute jaayante ak Abubakar زياد ما فنه كانوا يونت بلاد يبل ابو بكر واخ كوكو ابو بكر يبل فا المهاجر ابن ابي اميه تا بابا ماغا وون صنعاء نيكو ندم جابلي جي زياد تا ديمبلي كو تيا نياني مرتد كون بي لولو جالي لا خالد ابن وليد جيلي فوفو دم العراق نخ ابو بكر كو دال دي بند ليتر ni ko boo jógee foofu mën ngaa jàll Iraq fekki fa Musanna fekk Musanna ibnu Harisa ash-Shaybani bokk na ci ña doon xeex ca Bahrain ba gañe leen moom moo sàkk woon ci Aboubacar ni ko dafa bëgg dem Iraq pour xeexee ak ñoom ba Aboubacar jox ko ci ndigal ni ko na dem jiitu ji Xaalid jëkk mu ñëw danaa ko yabal mu daal di dem moom Musanna Aboubacar yonne ci khalid ibnul Walid bo ma nga yamama ne ko na dal di dem Iraq ginnaaw loolu jeex na kon non la khalid dem demee Iraq ngir xexi ak wa ak parsi yi moom itam béréb ya nga xam ne mooy bérébi xeex ya daanaka dañuy tudd tur yi rek mawqiatu daati salaasil jaar nañ ca ak benn guerre boo xam ñu ngi koy tuddee xisnul marati wa xisnul rajul ak mawqia bu ñuy wax mawqiatul walaja ak mawqiatu ulays nahru dam yëpp ay xeex la yoo xam ne ay jaar-jaar la mawqiatu amishia mawqiatu dati al'uyun ca anbar fathu ayni tamri yooyu yëpp ay béréb la yoo xam ne jaar nañ ca faagaagal ko ubbi ko dal di jàll doomatul jan bal jan dal jaar nañ fa ma nga ca peggu tabuk tabuk موقعة الفراد يبقى أي بريد خارج ليو خمني آه، تي العراق لا بين جاري تي بريد يب فاقا قال كمنا لا أبو بكر جوهن ديغل تيني نندم سام بور فتح جيكو كنا لنجوغي عراق دم سام ci weeru safar ci atum fukki at ak ñett la leen jox ndigalul dem saam pour jàppali jullit ya nekk foofu ca Mitéromé daal di jox xaalit ndigal ni ko nag bu dee Xiraaq moom mën nga fee bàyyi almusanna mu toog fi te yow nga dem waaye ginnaaw bu xaalit takkee bagaasam jóge Iraq de bàyyee fa musanna dafa mel ni loolu dafa indi luy nuru ak néew doole ci jullit yi ba tax perse yi daal di jógaat ñoom itam yeeslaat seen laxasaay ngir yeeslaat xeex bi noonu la Musanna bind abu Aboubacar di sàkku ci moom ndimbal ba lettre ba yeexee mu jógal boppam dem waaye ba mu ñëwee dafa fekk bakar mu nekk ci tawat bi mu ko ko waxee Aboubacar woo Omar ba mu ñëw mu dénk ko ni ko na ci dimbale jullit ya nekk iraq kon loolu mooy mujjub Abu Bakar ak yëngutu yi mu doon yëngutu ci xareeg ñi murtat ak yëngu yam doon yëngu ca xare ak perse yi ba nim yeblee saam nga xam ni kon muhimma bi itte ji gën a itteel Omar ibn Xattaab ginnaaw bu mu wootee Abu Bakar mooy yabal mbooloo ñu dem iraq ngir jàppale ji al musanna bokk na ci yu am solo yi Aboubacar def muy dajale alquran ndax lim bi mokkaloon alquran ci saxaaba yi bariwuñ woon ci biir ñàkk bari googu it dañ ko mokkaloon ni ñu ko déggee ci yonente bi rek waaye kenn bind ko woon fenn wala bokk ci ay këyit lañ ko daan bind lenn li ñu bind ko ci ay dari xar lenn li ñu am ay doj yu ñu rataxal bind ko ci lenn li ñu wut ay lu mel ni ay xob nii di ko ci bind waaye ñenn ñoom daal dañuy seet lu ñu mën a am ci aaya rek ñu fexe ba seet nuñ ko bindee waaye daje bu doon fenn nag ci jamono yi abo jamono yi abou bakar ci xilaaf ak abou bakar ci la omar ñëwee ni abou bakar man de gis naa ni saxaaba yi yonent bi ñi ngi faagaagalu ci xeexe ni ñi ni ñi tertere ci ci ak dee ni lëppaa lëpp ñi di tertere ci kaw sawara noonu la ñuy tertere ci di di xëccoo dee te ñoom dañoo yor alxuraan ragal naa lool bu ñu wàññikoo ko alxuraan réer ma bëgg nga dajale leen ñu dajale alxuraan Abubakar ne ko ah, def lu yonente bi defutoon Omar ne ko wallaahi loolu yi aw yow képp ci nekk Abubakar seet xelam yónnee ci Zayd ibnu Saabit ba mu ñëwee a fekk ci ñi daan bind wax yooyu wax yooyu ci la bokk ci mokk ci ñi gën a mokkal jamono booba ci ñi gën a xereñ ci la bokk moom Zayd ibnu Saabit moom mu wax ko xalaat bi Omar andi mu ni tel boobu Omar a ngi ni tel sëj jaar fa Aboubacar jaaroon ni ko si lu yonent bi defutoon ñu di ko def Omar ni leen lu dul aw yow du leen ci fekk lii ma leen wax mooy dëgg waaye mu topp leen topp leen ba seeni xel dellusi ñu d'accord ci ni kon nañu dajale alxuraan Aboubacar dajale mboolem ñu mokkaloon ci saxaaba yi Zayd ibnu Saabit moom ci la bokk ñu daal daje ci benn béréb kenn ku ne andi li nga yor ak la nga bindoon léegi nag ñii di tari ñii di xool mbind mi noonu lañ ko toppee ba dajale lépp biñ demee ba àgg ci aayab laxat jaakum rasulun min anfusikum gis nañ ni mokkal nañu ko waaye kenn yoru ko ci mbind waaye bañ ko gëstoo ba sonn ci lañ fekk ka wax abi xusayma ibnu aws al moom yor na ko ci mbind نكنو آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه بوب آية أم نانتي أك موتة مومتم فخوزي ما تبنو سابر لنكم جفك نون لن يبند القرآن دجالكو دات كوي تك فأبو بكر مدن بند كامل بفي أبو بكر جوغي كان بوبو عمر يوركو غنا بوم في جوغي دومم جي ني وخ حفصه تدونم سخنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موكو يور loolu ci darajey Aboubacar la bokk Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wax na ni alquran bi ki ci gën a rëy ab yool mooy Aboubacar ndax moo ko jëkk dajale kañ wax Abu Raja al-Mutaridi wax na ni dama dugg biir Madina ma gis benn waay buy fóon bopp ab waay di ko wax ni ko jote nañ la suñ bopp giñ nañ ci yàlla ne bulul ko ne yow dana nu àl ko nee ma waaw kii di fóone ak ki muy fóon kum doon ñu ne ma Aboubacar mooy fóon bopp ne ma Omar di ko sant ci xeex gi mu xeex ak ñi murtat xam ne bu ko defatoon dara du ko jar ci àdduna soxna Aïcha na bi fi yonent bi jógee day arab yi murtat naafiq yëpp daal di yoo xamte ko sama baye daj na lo xamni bu ko doj yi dajon sax bo dañ toj abu hurayra ni wallahi allazi la ilaha illa huwa law lam yustakhlaf abu bakr radiyallahu anhu ma hubida allah fi l ard abu hurayra ne na giñ naa ci yàlla mi nga xamni amul ben bur budul mom ni bu abu bakar wotu woton yent bi ken dootu jaamooti yàlla ci kawso wax nako ben yeen wax ko ñaar wax ko ñettel yeen abu bakar bi wajale ab arno te booba Yasid ibnu Abi Sufyaan jiite ko ànd naa di ko dénk ba ko ne yaa xalifata rasulillah imma an tarkaba wa imma an anzila ni ko yow xalifa bi yonente bi benn nga war mbaama wàcc Abubakar ne ko lastu bi raakibin wa lastu bi naazil déedéet du ma war te doo wàcc inni ahtasibu xataaya haasihi fi sabilillah ni ko sama jéego yi ci yoon yàlla ko boole bi mu feebaree it nangu wut a faju ngir dox gum dox ay mbiram yalla sahaba yi dañ ko seet seen ko ndax duñ la wol ak docteur mu len docteur bi gis na ma ñu ko lu wax mu ni len in mu ni mu ni len dani ma inni faalun lima uridu mu len lol la ma docteur bi wax man de lu ma neex lay def bokku na ci jikko yi gëna fën ci jikko Abubakar tabe Abubakar ku sa la ak ku sax ab xol la ku dëgër ab xol la ku amul dogu la ndax tabe gi ñuy wax buñ ciy joxe misaal rek dañuy wax ni bu fekkee alalam fukki xaaj la juróom-ñeent yee joxe na ko jëkk ñi jëkk gàddaay gi joxe na ko ci di di xett li ñi nga xam ni dañ leen doon bundu xataal ci jullit yi diggante ay Bilal ibnu Rabaax ak ñu dem ni ñoom lépp lu mu am ci alal dépensé na ko ci xaswatu Tabuk ndax bi yonent bi wootee ni ñu ko waxee woon ci gannaaw Omar moom dañuy bu may jiitu Aboubacar tey laa koy jiitu daal di xaaj alam andi genn wàll gi waaye Aboubacar moom la mu yor lépp la joxe bu ñuy andi misaal ci ak njàmbaareem mën nañ ni amul benn xare bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare te Aboubacar fekkiwu ko niñ ñu ko waxee ci ginnaaw bokk na ci ñu néew ña saxoon ci jamono yu oxat di di aar yonante bi bokk na ci ñu néew ña saxoon ngir aar yonante bi ci jamono yi xareb Xunayn Abubakar moo def bopp nen ba ci jeesem taxaw ci wetu baraag biñ eh, néeg biñ xayma biñ sampaloon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ragal yéefar yi dal ci kaw bu dee xol xol bu dëgër maanaam sax sax am xel képp nga xam ne ab xolam dinaan tekk nii ba dara du ko déranger yonente bi bi mu faatoo ba ñëpp jaaxle Aboubacar mooy ñëw wax ak ñoom dalal leen ni leen ku daan jaamu Muhammad na xam ne Muhammad faatu na bis ni ko tey ku daan jaamu yàlla nag yàlla mi ngi fii di dund te du dee te du dee mu ko bokk na ci ak dëgëram arme Usaama boobu mu yebal te booba arab yi ci ëpp murtat ñëpp amul jaaxle dogu gi mu dogu ci yabal ko mu dem loolu bokk na ci ak dëgër Abubakar daana wax ni ak muuste muuste ga gën a muus ci ak muuste mooy ak ragal yàlla waaye dof gi gën a dofe ci ak dofit mooy ak kàccoor wax nañ ni dëggu gi gën dëgg gi gën a dëggu ci dëgg yi mooy al amaana fen wi gën a soof ci fen yi mooy alxiyaana Abubakar daan def saa bu masaan lekk aw ñam woo xam ne dafa lënt daf koy wàccu fay daal di wàccu looju ko ba mu génn mun yàlla yàlla laat laat laa laatu axis nii bima sharibathu l uruqu wa gaalat al ama yàlla yàlla boo ma jàppee li ci samay siddit naan ak li ci jaxasoot samay butit daana waxit ni mbir mii day dara du ko defar lu dul la ko defaroon cek njëlbeen kenn du ko mën a gàddu it ku ki ëpp ci yéen kàttan gën cee moom boppam maa nit bu matul bakkanam euh, daanaka du mën a taxawal diine loolu la jubloo wax ku masaan di dénk dalay wax ni la yow sama mbokk sama dénkaan bii de boo ko boo ko boo ko boo ko jàppee bu la dara gënal dee daana wax nit ki saa bu yéemoo ci dara ci mbiri boppam bu ci yéemoo ci dara ci mbiri àdduna rek yàlla daf koy mere ba ba muy tàggoog taar boobee mu yéene boppam daana wax ne jullit yi rus leen yàlla man de giñ naa ci yàlla ne su may dem ci dus ba sax damay muuru ngir am kersa ci yàlla ragaloon yàlla ba bi mu demee ba faatu des ci doon na waxoon ak neexoon ma doon ak garab goo xam ne dañ ma dagg rek lekk ma ma jeex daana jàpp ci catul làmmiñam di wax ne lii de lu ma dal ma ko teg Abubakar daan def bu waree ci ak gileem ba yar bi wadd sax day yësal gileem gi wàcc dem jël yar bay door a yéegat buñ ko ne waaw yow mënu woon wax rek ñu jot li yar bi mu ne yonente bi moo ma digaloon ma bañ laaj nit ñi dara nga xam yonente bi tere gu muy tere nit di laaj nit dara ba mu ko ko teree àgg na ci yar bu wadde mu ne jox ma ko sax ko def kon ñooñu yàlla rek lañ seqoon ak nit ñi daana wax ni dox nañ ma mbir mi gëmuma leen su ma jubalee dimbali leen ma waaye su ma wàccee aw yoon nag na ngeen ma jubanti léegi mi ngi faatu ci diggante timis ak dee ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru la axira am na ñu ni ci juróom-ñaareelu fan ci weer woowu ay werante li ci am ci atum fukki at ak ñett ci gàddaay ملني أو تانغور موكو سورون تودي متي مودال دي جوخي نيغال تيني نا عمر جيت جوليغي فوفو يدلا ديسو اك صحابه يي نيلن دافي بيغا تك عمر ووتو كو غناوم واي ني نكو دوينغانو كو تان رك بان نون لا فاتو رضي الله عنه ني دنتي كو تي نيكسون عائشه مو دند اك يونانتي صلى الله عليه وسلم am na ci ay at juróom benn fukki at ak ñett mi ngi wuutu yonent bi diirub ñaari at ak ñetti weer ak fukki fan radiyallahu anhu kon ci waxtaan yi di ñëw danañ ci waxtaane sayiduna omar ak ni mu jàllalee xilaafatul islaam gi di ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg ak topp di ñaan sëriñ bi mu yàgg fi lool te amuk wér السلام عليكم ورحمة الله وبركاته